ñuy dem ba ci yàgg mu romb bokki sëriñ bi eggale ko ci bokki taalibeem léegi nag sëriñ bi gërëm ko bokki sëriñ bi gërëm ko taalibe yi gërëm ko xattal jamaadaat jamaadaat yi mooy sëriñ Touba di dox naan fu ma xool ci kër gi gis lu ay saa jëf jëf ji di ma ko fàttali man baa koy doog a dégg waxu daanukat laa ko tegal ma gis ku ñuy wax Baye Ngouda Cissé mu ni ma man di dégg naa ko ci sëñ euh, Cheikh Diop Fatako te nee na ci sëñ Touba ko déggee ma jóge waat fa toog ak sëñ Yuusu jennum Seex Isaa mu ànd ak sëñ sooy bu sama mag jii ak sëñ Seex dem ci sëñ Abdoulahi borom sëñ Abdoulahi Jaxate moom sëñ Amsatu sëñ Abdoulahi Jaxate ni leen am na bis boo xam ne bi ko sëriñ Tuubaa di wax maa ak Seex Abdou Lahad Mbàkke ñoo ci teg suñ bët dégg mu naan kër gi lu fi nekk Isaa ko fi indi ba ci kaamil bi ma bokk sax nee na li doon yëngatu ci catal kaamil bi sax ñu ngi koy gis kon il est temps ñu jóg jublu ci liggéey bi te defar suñ jëmm yi te xam ne ñun ñaar la nu saa Isaa dénk muy jam na bayna shariati wal xaqiqati te loolu mooy yoonu wiir wi nga xam ne yeneen tu yi moom lañ fi indi woon sëriñ Tuubaa ci la jaaroon ci la jaarale njabootam keneen ku ngeen di ñee wala ngi mu leen di góonde ñàkk xam seen bopp la maa ngi jéglu nag kon sëñ siini jukki lii lu tuuti la ñu ko ndax tey sirul asir la tey sirul asir bi li tax ñu def ko dafa am seebul ci kër tey siir xam ngeen ni bi ko Cheikh Issa bi ko Serigne Touba liggéeyee ba pare daawoo maam Cheikh Issa ba mu ñëw mu yëkkati ko teg ko ci loxoom ni ko bi ma koy bind damaa dem bay muslu ci seytaane seytaane ni ma indi bëri un min ka jotewuma ak yow dara nee na ma àggale xasida gi di waa julli ci yeneen bi mu ni ma doy na bu ci dolli dara ni Cheikh Issa am bu ko fande bul ko di ñu décoré ko ba mu mucc ay bëgg ku ci mën a jàng nga di ko jàng ku ci mënta jàng ko fu sell naa aar sa kër defar sa njaboot kon sëñ siine lii kuréel gee la ko jox bu ñu amoon jox la ko waaye amul lu ëpp tey sirul asiyal teg rek di la li nga bëgg ci kër Cheikh Issa yaa ko xam yàlla na la ko yàlla defal waaw. au soxna Absalo soxna Absalo. am na fu ñuy wax soxna Absatu Lo. egsi na waaw. ci sunu mbokki soxna yi la. innal muminina wal muminaat. wal muslimina wal muslimaat ila axiri aaya góor ak jigéen a mos a am sayiduna muhammad alayhi salaatu wasalaam ñi jëkk adhéré wu ci wooteem bi te jàppale ko jigéen a mooy sayidatuna xadija kon jigéen ñi ñu ngi leen di woo waaye kuy ñëw tam col gu yiw wax wax ju yiw ak mucc ci mboosoom ndax Cheikh Issa daa am lu doon bañ ci këram ñi ngi lay sant di la gërëm di ñaan yàlla na nga am njaboot bu barkeel te fekke seen njëriñ ginnaaw soxna ab salo Serigne Modou Ka sëñ Modou yegsil waa mbokk mhm. sëriñ Modou Kam yi ci topp di sëtub Seex Musaa Ka Seex Musaa Ka yéen ñëpp dégg ngeen ay turam ay nit yàlla lañ yoo xam ne Fuuta lañ déparé woon ca rom naan ca euh, añam séwén ay nit lañ yoo xam ne ñi leen mos àttan bariwul moo tax biñ duggee ci réew mi ñenn ñi sëñ Tuubaa lañ topp ña topp Seex Isaa lañ topp kenn mosu leen a àttan ci réew mi ndax yàlla mayoon na leen lépp lu ñu wax moo am seenu dëkk buur bu fa mosaana dugg ci lu seen digal foo lekku tey ñu ngi ci ginnaaw kër seen Aysa bu ko neexoon toog waaye jéem mott li waaw wallaahi wallaahi kon sëñ Modou lii amuñu lu ko ëpp mooy tey sunu asit dafa am sémbul kër gi feddalee ko ak yow kóllëre di la xamal ne sunu maam yi ñoo àndan démb tànk ak tànk bala noo bàyyi rek danoo am ndam lépp lu fi Cheikh Issa bàyyi incha allah daañu ko yeesal jërëjëf sëñ Modou sëriñ Mbacke Sourang sëñ Mbacke ah ah waaw waaw sëñ sëñ sëñ am waaw sëriñ Mbacke moom du sori ci moom Cheikh Ahmadou Dame Sourang mooy maamam Cheikh Ahmadou Dame Sourang moo nekkoon jëwriñu maam Cheikh Aïssa ci jamono bi muy liggéey jumaay njeereem ji doonoon ko way di boroom xam-xam di aalim di doomi soxna xabilatu surong xam ngeen leen ci réew mi kenn yëbu leen ay nitu alquran lañ Cheikh Issa fonkoon na ko ba yëkkati ñaari bantam yu jigéen jox ko jox na ko kenn mu dem mu joxaat ko keneen moo kam ko joxoon di soxna fat ndànd moo jur way juróom moom yi xaafisul quran la aalim la masaalikul jinaan dingeen ko fa gis muy def ay bayaan ba mu duggee dakaar ba léegi benn liggéey la mos a am xam ma ngay yëkkati daara ju mag ca Touba joo xam ne la ca war a dem ci million kenn xamul nu mu toll te yëlwaanul fenn saa yu ngeen ko gisee rek Cheikh Issa woote fu personnalité yam fa la yem yàlla na yàlla faj sa aajo ñi ngi lay sant di la gërëm bu ñu amoon lu ko ëpp jox la ko seex ba Bassirou Gueye mi ko koy joxit ñu xam le ne ñu bëri xamuñu ni sëtub seex Issa jenn la ndax Serigne Souleymane Gueye mooy woy juram te Serigne Souleymane waaw sëriñ Souleymane Gueye mii way juróom soxna Faatija Jenn taaw maam Cheikh Issa Jenn moo ko jur mhm. soxna Faatija Jenn moomu soxna Faatija Mbàkkeem sëñ Tuubaa lañ ko tuddee Cheikh Basiiru Jenn xay mi ñu doon wane léegi ñoo bokk way jur bu góor ak bu jigéen kon sët la ci ginnaaw sëñ Mbàkke euh, Sourang sëñ Ibrahima Bey sëñ Ibrahima Bey sëñ Amidoun waaw sëñ Am Diop <laughs> waaw sëriñ Ibrahima Bey maak moom ak sëñ Mbacke Sorong ak sëñ Mbacke Abdou Salam Dieng mële toof nga xam ni moom ndeysaan du nungoo jaxasoog nit ñi day làqu rek sëñ Mbacke sëriñ Mouhamadou Amine Dieng Abdou Salam livre yi ngeen gis nii ñun ñoo koy bind montage yeeg lépp lu ci aju moom moom mii safar automobile la la yore dernière qualité yi gën a jafe ci oto lay liggéey boo ko fekkee place am da koy yërëm waaye boo trompé ba sangu ba waaj boo ko xoolee doo ko yeb Cheikh Issa nii la lii mooy xàqatul kon sëñ Ibrahima Bey kuréel bi sant na la lépp loo man ren bu déwénee yàlla na nga ko man ci barkeb Seex Isaa ci ful rek ngeen nekk am na loo xam ne ku ko am da nga koy téye waaw jërëjëf Bey waaw ñu jël nataal bi ah waa yéen yéen ah kay sa bàjjan waaw suñu bàjjan soxna may mun a jenn bàjjanu xale yi moom yar ak teggin soxna may mun a jenn bi daan def yar ak teggin ci Lamp Fall TV ñu di doom ci Cheikh Abdou Salam ibnu Cheikh Aïssa Jenn moom it ni ngeen koy gisee ci commission culturelle bi la bokk ba noppi it di jàmbaar di liggéey ay liggéey ci suuf yoo xam ni bëggul sax nit ñi xam ko ba pare it nekk exemple ndax bi ngeen koo gisee ci rajo yi bu journaliste yi yëpp ak ñi yëngu ci média melan ni moom kenn du yem sëñ Touba loolu nag day wane grandeur maam Cheikh Issa fu daraam nekk te kooka xam ni moom Cheikh Issa la àndal xam doxinu kër gi fu mu nekk kenn du ko yem kon soxna May bu ñu amoon lu ko jox la waaye xam na ni sama rek ngay liggéeyal yal na yàlla faj sa waaw mi ngi noonu kon waaye itam ñi koy nuyu di nuyu boroom këram ni ma koy waxee chaque jour rek l'homme l'incontournable le messie des directeurs monsieur du Modou Fall duñu dañ di ko nuyu di ko sargal bu baax a baax a baax ndax moom itam ci kër gi la bokk waaye jàmbaar la lool lool lool ci liggéey bi donc ñu koy ñaanal suñu borom li nga xam ni moom la moom la ay kilifaam bëgg ci liggéey bi mu am ci ndam ñu ngi koy nuyu bu baax a baax le directeur monsieur Pape Modou Fall waaye itam euh, dañuy daal di dañuy daal di jublu. soxna Seynabou Diène hmm, bintu Cheikh Souaïbou Diène moom Cheikh Mamadou Lamine Bara Diène di xalifaam moom it xam ngeen ne ci soxna yi nekk Ndakaar la ne yenn saa yi dana ni réunion ba heure boo xam ne sax bu ñuy ñibbi dañ leen di yërëm waaye lépp ko rek ak bañ leen suñu maam yi bàyyee ñu mujj puusa bi mu réer ñoo ngi kay ziar bu baax di ko ñaanal di ñaan yàlla yàggal taxawaay bi te wéral leen njaboot gi yàlla ko yàlla barkeel li ngeen def rek mooy fulla sëñ Touba du juum du jaawale tey itam toujours damay wax ni sëñ Touba ab forage la ci misaal mboolem kër yi ngeen di dégg ay robine lañ amul ndox mu gën meneen maam la ca forage ba mooy ballu fépp amul ñaari ndox amul ñett boo ubbee forage ba robinet bu ndaw beeg bu mag baag yëpp men ndox mi la jaaxaan baaxut sëñ Tuubaa dëgg la woote muy àqiqatu nan la ci delluwaat nun looloonu sunub sëriñ yare duñ ci tiit duñ ci jàq kenn mënuñu cee menacé euh, salaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi nuyu bu baax kilifa yi nekk ci jataay bi yëpp ñoo ngi leen di ziyaare di ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaxa sun borom yàggal ko fi lool te mu wér euh, mboolem ñi nga xam ne ñoo daje fii nekk ci saal bi tey bis bi nga xam ne nii ci la ñuy fàttaliku maam Cheikh Issa Diène jàpp naa ne ñi fi teew ñëpp xam nañu ne kurél gi muy laaj na bi ñëw nañu ci heure ñëw nañ ci wax waxtoom damay faral di wax sëñ Ibrahima Bey ak sëñ Mbacke Sourang ak sëñ Mbacke Diène ak sëñ Moussa mi ne leen. Euh, kuréel gi li tax mu am solo mooy dañoo nosu lépp lu ñu lay def loo ñoom dañ koy organiser programmer ko ba noppi door laawoo te loolu bokk na ci organisation ak dimbali nit ki nga xam ne da ngaa bëgg mu jàpp ci liggéey bi te ñoom yàlla may na leen ay boromi xam-xam rek ñoo ne ci biir danaay wax ne xawma lu yoonu murit manqué waaye du ay boromi xam-xam te loolu bala ñu koo xam ñu dugg ci seex si nga xam ne nii ñoo wóoroon sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul tey jii nag ñun ñaari mbégte lañ am benn bi mooy kuréel gi moom ñun dañ cee bokk te ku xam ni ñuy doxee di nga ci bokk léegi la sëñ Moussa taxaw fii wax wax joo xam ne xëy na ñu bari prêté wuñ ci attention ci ne njaboot gi ci boppam ñoo war a jël liggéey bi ci seen bopp xam ne. mbir mën naa gën a kawe waaye ñoom ni ñuy doxee ci organisation jafe na lool ci tumuraank ci jamono ji ñu toll te lu nit ñi war a jëlal seen bopp la te ren ñu taamu tudde ko maam Cheikh Anta borom Daaru Salaam ak sëñ Afe Mbacké mii rakam ku tudd njaareem di nga tudd sëñ Afe ku tudd njaareem it di nga tudd maam Cheikh Issa Diène jumaa joo xam ne nii keroog bu ko Cheikh Issa di wutali sëñ Touba ku la wax ne du woon 2024 la ko wuti woon nga weddi ko ndax dafa anticiper woon jamono xam ne sëriñ bi lépp lum la digal la ca gën rek nga koy defal moo taxoon mu mu defaral sëñ Touba jumaa ji nga xam ne nii bawal bufta bi di taxaw waxtu wu xëyee jumaa ji di gën a yees di gën a méngoog jamono kon ñoom bu ñu jëlee bis bu toll nii dara jaale ko sëñ gaawaan te sëñ tubaa jël sëñ aafi jiital ko ci jumaa njaareem ji ndax Cheikh Issa moo defar jumaa ji sëñ aafi moo jiite jumaa ji loolu bari na jàngat bu rëy rëy rëy xaw ma niñ koy defee dafa mel ni baatin def cee ànd te ku ne xam na diggante sëñ gaawaan ak sëñ yaafi ndax sëñ Touba ki mu njëkk defar ci yoonu murit seexal ko jox ko dëkk jox ko mbooloo mi amoon mooy sëñ gaawaan te it nag ni ñu toppantee ci Saalum. noonu nii lañ toppantee ci Serigne Touba ci ni mu leen defaree ñoo ngi nuyu bu baax Serigne du Mbacke moom Serigne Abdoul Wudóot mi nga xam ne moo jiite délégation bi di njabootug maam Cheikh Anta ak njabootug sëñ Afe te ñaari njaboot yi génn kër kepp la bu ngeen ko tuddee woon sëñ Gaawaan rek njabootu sëñ Afe dañuy ñëw su ngeen ko tuddee woon sëñ Afe rek it njabootu sëñ njabootu euh, sëñ Gaawaan dañuy ñëw genn njaboot la génn kër la ndax sëñ Touba leen boole woon laa koy wax sëñ Abdoulahat mais ne ko njaboot yi bu ñu jëlee seen kàddu jox ko kenn sax tënk bi mën na mat waaye dañoo boole ñetti jàmbaar ci sëñ Tuubaa maam Cheikh Issa jenn ci jamono jii ñu toll képp kuy def journée di ko waxtaane di nga waxtaane jàmbaar di nga waxtaane murid saadix di nga waxtaane kookit deful dara boppam sëñ Tuubaa ko xool def ko ni ko neex moom ni sëñ Tuubaa xoole maam Cheikh Anta ak sëñ Gaawaan def leen ni mu leen ni mu ko neexee mu def leen ni noonu la xoole sëñ Cheikh Issa xool ko ni ko neexee mu defee ko mooy la 11 mars 1918 premier chantier ci yoonu murit buñ taxawal nga xam ne mooy construction bu sëñ Touba njëkk taxaw assisté ko fekke ko nga xam ne da ko fekke ci dundam mag ngi fekke ko mooy la 11 mars 1918 te keroog bi mu tegee xeer yu ba bëgg ba noppi dafa ne gees ne ana Cheikh Issa mu ne ko Mbàkke mu ne ko sam liggéeyee ko te bi mu koy defarloo sëñ Cheikh maam Cheikh Issa ñu baree ngi fi woon waaye xam na ne lim ci bëgg Cheikh Issa dina ko matale Cheikh Ibrahima Diop almasar dafa waxoon ca wayoone cheikhun bihi kulla makrimatin mooy mag ñii nga xam ne tey bu dul woon sëñ tubaa duñ wàcc ci kaw xarnu bi ndax gisuñu leen gisuñ fi ci kaw suuf ku leen jaral boot ci sa ginnaaw sëñ tubaa moo fa bu du ñëw am mag ñu fa bu ànd ak moom mu tànn ña ko ca neex mu indi leen jëlee leen ci sama borom loolu Seex Isaa Jeen da caa bokk loolu nag mooy jëf jii mooy wane nii tey actuel kon lii ngeen def liggéey bu am solo te murit yëpp nag am nañ ci wàll am nañ ci part ndax organisation bi lii ñuy liggéey nii ay millions lañ koy defaree ay millions lañ ciy def ci su le plan communication lépp li ci jublu mooy wane mag ñi ndax ku ñu tuddee bis bi li ñuy def taxaw seetlu ci yow ak jàngat bi ñuy def ci yow moo ëpp solo sax moo gën a fës sax li ñuy def ci maam Cheikh Issa Diène kon yàlla na yàlla mottali leen seen liggéey njabootu sëñ Gaawaan nag bu ñu ñëwee fii njabootu sëñ yaa fi ñëw ñoom sëñ tubaab moo leen xool def leen ni ko neex mus sa ñaan sa borom ci jamono yi mu nekk ci xat-xat te du ñaan mukk te boolewu ci dëkkam bi ci Daaru Salaam li gën a bëgg gën koo fonk loola la jël rafaati la ko sëñ gaawaan tey buñ la waxee ne nit la moo mës a taxaw sëñ bi ne ko doxal ci kanam jiite ci àddina kenn képp la muy sëñ Aafi te it ñoom ba tey jii génnuñu jumaa ak jàngale alxuraan ak sunna loolu moo waral ñun sunna ak jumaa du tumuraanke ci ñun ndax sëñ Tuubaa daa fop ñoñ da ko def ci seen deret muy daw kon journée culturel bii ñuy def dañ ko tuddee maam Cheikh Issa Diène waaye am na beneen reflet bu mu am ci biir yoonu murit bu muy wane mooy wane mag ñi nga xam ne ni li ñuy wax naan dooley boroom kër ca surga yi ñi waroon sëñ Tuubaa képp di ay mag boof ci kanamam yaakaar ko topp ci ginnaaw mën nañoo atteeb xarnu yàlla na sama borom daje leen ci ngërëmul sëñ Tuubaa li ngeen ci bëgg lépp yàlla leen ko sëñ Tuubaa defal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu bismillah kon taxawal nii rek kon ñi ngi ziar ñëpp tey sant ñëpp bu baax a baax euh, dafa am loo xamante ni baaxuñ di wax sax ci micro waaye sëñ Jibril Ndaw documentaire bi ngeen di gis ñu koy jàllale at yëpp moom mooy def voix off bi sëñ Jibril Ndaw ko xamul dégg ku ko xamul dégg na ko ak sëñ Mbàkke Mbóoj eh, jamxee bi dañ leen doon sargal bu baax ñu am ay kàddu yu ñu bëggoon a jàllale pour sant bu baax a baax bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di jiital ci nuyoo bi kilifa jataay bi. di nuyu sang yu baax yi nga xamante ni ñoo fi teew ñëpp xam naa tey moom duma mën a jël kàddu ndax euh, émotion bi ndax fii nga xamante ni fi la ma fekk ak nii nga xamante ni tamit noonu la ko njabootu Cheikh saa defee euh, dama ko wax léegi Ibrahima ma ne ko daanaka lu mat ñaar fukki at a ngi nii ma nekk ci presse di ci liggéey documentaire yi tamit amul lu ma ci defut man ak sëñ Mbàkke Mbooj mii Mbàkke sax ñu bari xëy na ñu ngi koy doog a gis tey ndax technicien du feeñ moom ci ginnaaw lay nekk waaye bu ñu yëkkatee teraanga ju tol nii woo ñu sargal ñu dama ne leen lii c'est une première fois boo xamante ni bañ ci nekkee ba léegi di ci sonn ñu ngi mës a yëkkati teraanga ju toll nii duñu ko duñu ko sargalee ci documentaire yu ñuy def te loolu c'est grâce ak njabootu Cheikh Issa njaboot njabootu Cheikh Issa nag damaa ñoom. dale ko ci sëñ Abdou Samad Mbàkke mii moom sëñ Modou Fati Xari ak sëñ Maxtaar Jenn ba may nekk làmp Fall booba ña nga Touba Sandaga damay def émission ba jeexal wàcc ci suuf fekk sëñ Samad gaare otoom di ma xaar walla sëñ Maxtaar gaare otoom ñoom ñaar dañ ma doon xëccoo bu kii jëmee faja faja kii jëmee ma Liberté 6 kon muy lu ma yàgg la sëñ Modou moom it maa ngi koy maa ngi koy maa ngi koy maa ngi koy ziar bu baax kon daal lii mënuñu ko woon a def jataay boo xamante ne nekkul jataay bi amul lépp lu may def ci Touba ci màggal wala dara ndare damay dem ba kër sëñ moodu wañ ko la kon taabal ji ñu fi nekk ñëpp samay wëllëre lañ kon yéen ay seere ngeen ci lii te xam ngeen bu baax a baax li nga xamante ne ñu ngi ko ci doon def démb tey doog a ñëw ñu ànd ci ak yéen ngeen doon ma ko wan ay at lii doog a ñëw kon lii day wane ne rek seen yéene seen yéene ci man kon ñu ngi ñaan bu baax baax di sant ñu nag njabootu Cheikh Issa fu ma toll ba dama dem sax Amérique am ci taalibe Cheikh Issa boo xamante ni ci documentaire yi la ma toppee wax dëgg yàlla teraanga ju nekk maa ngi ko ci am kon lii xëy na lu ngeen def la rek waaye gëm naa ni liggéey bi may def Serigne Touba nangu na ko ndax bu ma bu ma sëñ Touba fayloo Cheikh Issa ndax mënoon naa jaar ci ku ne waaye mu jaar ci Cheikh Issa kon loolu dañ leen ciy sant bu baax di jaajëfal commission culturelle bi bu baax a baax sëñ Ibrahima sëñ Moussa yéen ñëpp ñoom sëñ Mbàkke ak sëñ Mbàkke wax dëgg yàlla amuñu seen fay ndax liggéey bi képp ku la ci boole rek kooku moo lay dimbali kon nag ñu ngi leen di sant bu baax te di leen ñaanal ngeen tase ak tawféexi sëriñ bi wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf jërëjëf kon euh, dañu jox sëñ sëñ sëñ Afe euh, mu yëkkatil ñu bu noppee rek jox sëñ Abdou Samad mu wax ci tuuru soxna aji maam Bousso bu ko defee ñu jàll ci kilifa yi